mbokk internet Kabir TV ñu ngi leen di jaajëfal di rafet lu ànd bi ngeen ànd ak ñun ñu dikk ak yéen ci xibaar yi ci kàddu gi ngeen ànd ceeg soxna Fatou Gueye ci xarale gu ñu feggoo ceeg Mansour borom daara ji. presse sénégalais xëy ak nakar ak tiis ak génnuk àddina journaliste bi di fa Diallo nekkoon ci kër liggéeyukaay gi di APS e di agence de presse sénégalaise niki tey ji si altine ji fanweeri fan ak benn ci weerum octobre ci hôpital a Ndao Kabir di jaay la ak mboolem ku nekk ci presse sénégalais ngir lu soxol ñetteelu mandat njiitu réew mi Macky Sall Alioune Ndoye maire bu Dakar Plateau ne bu fekkee benn Bokk Yaakaar tànnaat nañu njiitu réew mi Macky sàll ngir mu doonaat seen candidat ci élection 2024 yi di ñëw ne pare na ngir baat campagne ngir euh, sénégalais yi falaat ko te am na yaxin ni ne njiitu réew mi mën na doon candidat njiital Pastef Ousmane Sonko ak tournée nationale bi muy amal la niki démb ci dimaas bi ca Cikki moom meex bu Ziguinchor di sàkku ci gouvernement bu Sénégal bi ñu garder seen son mal en conscience te it ne duñu bàyyi kenn di leen fitnaal te duñu fayu biti réew ca Côte d'Ivoire en exil depuis 2019 Guillaume Soro nekk ca ku jëkk politique ba ñu tabaat ko ci bopp mouvement bi nekkoon njiital Assemblée assemblée nationale di am yaakaar bés bu nekk ngir def jéego yu am solo ci politique malgré une perspective de retour sur le sol ivoirien qui pourrait aujourd'hui nul gannaaw sommet de la ligue arabe bi ñu war a amal ca Algérie waroon na door talaata benn fan ci weerum novembre ca Alger waroon a dox ci teewaayu souverain marocain bu ñu sukkandiku ci Jeune Afrique Mohamed VI daa mujjee dàq ñëwam boobee gannaaw ba mu waroon a teewee sommet Ligue arabe bi war a am ca Algérie loolee la ko waral di tension entre Rabat et Alger. Euh, tàggat yaram ak Tunisie boo moyiwul la duñu bokk ci coupe du monde 2022 euh, ba ñuy amal ca Qatar FIFA daal di bind ab lettre fédération tunisienne de football ngir ingérence de gouvernement au sein de la fédération tunisienne lii moo fi ruuse woon ci ay xibaar ngeen di wéy di ànd ak programme Kabir ci kàddu gi ngeen àndoon cek soxna Fatou ci xarale gu ñu feggoon cek maasu borom daara jàmm ak jàmm si yeneen jotaay xibaar